ñoo ngi leen di nuyu ku si nekk turam ak santam daa leen ak jàmm bu la ñoo àddoo si li nga xam ne nak Boun Abdallah Dionne daal di na koy wax yëkkati daal di koy teg si ki nga xam ne nag moo di Amadou Ba mi nga xam ne moom la Macky Sall daal di tànn ngir mu nekk nag ab candidat dañuy ñëw si kaddu yi nga xam ne nag kii di eh, njiit si yenn si njàng yi daal di na koy wax muy wax que ne nag nañu bàyyi doomu Sénégal bu mu mën a doon bu bëgg bok ci jongante yi di ñëw mu daal si bokk ndax loolu nak mooy jàmmi Sénégal té nak wërsegu Sénégal la yalla suñu borom nak mooy tànn kuy jité réew mi waaye nak jamm la ngir nak ñu bayyi képp ko xamné daal bu gëna bok ci élection yi surtout mu nekk ko xamné nak nag avenir réew mi la ñu daal di koy bayyi bañ gal encore mu daal di bok ci élection yi ki nga xamné nak modi bun Abdallah jonne daal ne yëkëti ay cadeau daal di koy tek ci kaw ndoddu ki di Ba may wax ka mom nag moom mii di Amadou Ba nak da fay japp ay da nanam da simom jël nanam ay nit si mom si mom abdullah di len eh, ger ger nak ñu daal di ñew bok si mom mi di Amadou Ba waaw bun abdullah Dione mo wax noonu mel mais que ne nag candidat Sall nak mom da fay graré di joxe xaalis si yenn gox fu mu dem ay ñoñam ngir nag ñu daal di dem ànd ak moom moom Amadou Ba kaddu yi kii di Boun Abdallah Dionne moo koy yëkkati daal di koy teg si kaw ki nga xam ne nag moo di Amadou Ba nekk candidat bu président Macky Sall.